damay faral di wax lu bari ne suñ xooloon rek sunu borom subhaanahu wa ci ni nga xam ne noonu la jëflante ak doomu aadama yi ci nut fa boobu mu am ñëwante boobu mu am ak ni nga xamee noonu la amee sañ-sañu jël ab yaram di dóor foo ko neex te kenn du ko kenn du na kenn du ko bàyyil waaye jëflantewut ak noonu de euh, exemple bi ma ci joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jógee mag ñëw a war muhaajiran min makkata ilal a war booba fekk saxaaba yi dañ jëfandikoo sàngara ba sax sayidna amir ibnul xattaab di ñaan suñu borom tàllal ay loxoom di ñaan suñu borom ngir mu leeral leen mbir mi ci nekk ndax gis na ne moom am na ay yàqute yàqute yoo xam ne mi ngi koy jur ci société bi gis na ne day indi ak féewaloo di jaxase ay bokk effet yi muy def ci doomu aadama yëpp mu mu mu tax a wax ko allahuma bayyin lana fil xamri bayyaanan saafiyan sunu borom eh, bi muy wuyu Seydina Amar ci ñaanam googu mu doon ñaan ak mbir moom mu doon laaj bëgg ci am lu ko leer yàlla dafa wax yontu salaa salaam yasalunaka anil xamri wal masir xul fiihima ismun kabirun wa manafiun linnaas wa ismuhuma akbaru min nafihima yow Muhammad ñi ngi lay laaj sàngara ak li ci aju ngir ma jox leen ci ay leeral yu leer ay information ngeen gën ngeen ngir ngeen gën a comprendre mooy day li muy yàq mu ëpp li muy defar donte nag tuuti njariñ mi ngi ci njariñ li mooy lan bénéfice bi nga xam ne moom la ci waa ji di am su jaayee lam ciy am waaye nag conséquences yi ngay xool li muy yàq ci yaramu doomu aadama ci wàllu santeem li muy def ci ci wàllu jikku ni muy def xolub doomu aadama nga xam nit bu ko jëfandikoo woon tey jii mën na ko indil ay jafe-jafe yu nekk ci diggante moom ak i nawleem du am respect nit ñi mën nay def loo xam ne bu xeqee ca manditeem googu noonu daf koy indil ak réccaange da koy réccu sew sew boobu noonu ci moom la suñ borom jox def benn signe xamal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko xamal lii xamala lii nii saxaaba yi xam nga loolu benn étape la deuxième étape muy amaat beneen saxaabi yi boo xam ne nii taxul suñ borom ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko de waaye amaat beneen saxaabi boo xam ne waxtu julli mu ñëw taxaw di julli bi muy jiite fekk boobu mi ngi jëfandikoo woon euh, ndox moom yi ba ak mandate fekkal ko fekk ko ca bi mu taree faytantul kitaab ba mu jeex teg ca xul yaa ayyuhal kaafiruun la abudu ma taabuduun nga xam ne xul yaa ayyuhal la abudu ma taabuduun moom bi mu ñëwee au lieu que mu wax la abudu ma taabudun day wax abudu ma abudu ma taabudun maanaam suñu borom lépp loo xam ne nii dàqoon na ko ci biir saar yi rek moom bi mu ñëwee daf koo saxal la abudu ma taabudun li muy tegtale mooy du ma jaamu yéen yéefar yi li ngeen di jaamu waaye abudu ma taabudun boo ko waxee mooy yéen yéefar li ngeen di jaamu damay ñëw fekk si leen ci jaamu gi bu musiba am bim sëlmale ci la ko saxaaba yi wax ne ko yow day def nga njuumte lu rëy ndax lépp lu suñ borom xaraamaloon dagg dagganoon ko ci biir saar wi mu mu tiit ca. sunu borom dafa wàcce wat ay alxuraan yaa alladina amanu la taqru salaat wa antum sukaara xatta taalamun maa taquluun yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëfandikoo sàngara bu leen ko jëfandikoo mukk di jegeti di di julli am ci ñoo xam ne dañoo séddaliku ci saabe ñii def deux parties ñii ne ah comme que suñu borom nee na lii buñ ko jëfandikoo jege ju lépp loo xam ne day dox suñu diggante ak nañ ko bàyyi am ñu ne deet comme comme suñu borom nee na buñ ko jëfandikoo ci ni nga xamni non la parti bu njëkk bi ñe waxe won na suñu borom comme na ci ndariñ nañ ci nekk ñenn ñi ne comme lor je ëpp nañ ko bayyi ñi ñëwaat waxa daal ne ah su fekkee ne duñ ko jëfandikoo jege julli kon nañ ko nañ ko jëfandikoo diggante timis ak gee lu fi lu ko fi ñol ñol ci diggante bi moom xanaa da nga mën a xiqi ba gee nga mën koo julli nga gis loolu lépp bi mu xew suñu borom ne tekk bàyyi leen ba ca troisième étape suñu borom ñu wax lan yasalunaka anil xamri wal maysir قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما اك لم وخاني يالا دينام لا تخلو صلاه وان سكار خطا تعلم ما تقولون دو ايتاب بي نون ترويسيم ايتاب مو انما الحمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم الغداوه والبغضاء في الخمر والميسر wa yasdukum an zikrillahi wa an salaati fa hal antum muntaxun xoola sew-sew yooyu noonu ngay indi def ci jàngat mooy suñ borom daa ñëw dàq mboolem li ñu tuddee anzab azlam yooyu yëpp mu ne rejjisum min amali seytaan daañu nag wattandiku leen ko dem na sax ba suñ borom day mel ne dafay am foofu ñeewante bi mu am diggante moom ak mbindeef yi du wax ne sax lii rek daa xaraam bàyyi ko rek waaye dafa naan la lii ak lii la lii ak lii moo ci nekk danger yii moo ci nekk soo ko bàyyiwut lii moo la ciy fekk nga xam ne xoolal lut fa boobu ñeewante boobu mu am te sax taxul mu yem ca waaye dafa dem ba à la mu ne waaw ndax sax lii ma leen di tere da ngeen ko bàyyi est-ce que da ngeen ko bàyyi nga gis xoolu googu ñeewante ndax gis na tàmmeel gi tàmm giñ ko tàmm موي موي انسيستي تي ارامل جيمكو ارامل باي لاج دي واخني اسكو صاح لي داين كو باي لو سيدنا عمر بن الخطاب واخ انتهينا يا ربي والله دا نانكو اريتي بن مثال يي نونو بنيو جوخا ني جولات بنن مثال ا تي لي لي ماي واخ ليب لن لو تي نيك نيت كي من نتي جيل اي اي اي, اي بيند na jël na jël bigam ak foyam euh, wala wala wala wala benn papiyam bu ndaw note lii may wax mu indi ci ay jàngat def ci ay jàngat danga ci gis ay njariñ yu dul jeex mën nga cee def ay sara yu mag a mag a mag ci lut fa boobu sunu borom am pourtant Seex Ahmadu Bamba mi nga xam ne dañ koo tooñ wax ne day jeexaat day dajale ay ngànnaay day def lii day def lii nga gis ne ndekete kon mbir yi moom système bi lu fi yàgg la lu fi yàgg la te léegi système bi ñi koy doxee ñan ñoo leen formé ñan ñoo leen formé ñan ñoo nekk ci ginnaw lii mooy li mata a bàyyi xel te lii dafa yàgg booba ak léegi Cheikh Ahmadou Bam biñ ko tooñee génne ko fii ci am réewam taqali ko ay njabootam taqali ko ay doomam taqali ko ko ay mbokkam bi mu demee ba ñëw moom sax àgg na ci ay waxam di wax ne law anna nii lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil itaaba lamata bil wabai kulla kafirin in lam yatubu lil ilahi l gaafir waaye daal di wax ne laakin afawtu an jamihi naas ndax li wajhi baaxin muhlikin an naas ñoom ñëpp daf leen a yërëm ngir jég jéggal leen te jëmi sunu borom subhaana taala rek tax ta ñu nekkoon ci tooñ gu gu biir tooñ gu fés waaye léegi ki nga xam ne moom dañoo jël ñun sun sun sun sun sun bi jël sun ay ngànnaay lépp lépp réew mi ñu jël ko teg ko ci loxoom ne ko dañoo bëgg nga doxal moom mu wëlbati carte gi jël loolu dañu ko xeexee kooku tey jii nga xam ne ci ak tooñ la nekk est-ce que kooku xalaat na di baale lan moo ko fi lan moo ko mën a mën a lijjanti ci jamono ji ñu toll lu dul résister résistance kese te nit nag bu fekkee ne dañ laa jekku ci ay mbir yu bari yow yat yi nga yor pour man ko xexé nit ke ñew taxaw jamar jàmmarlu ak yow fekk la nga jàkkaarloo sag non mu ne la tagal yat yi bu yagge yow fan nga ko bëgg classé ndax bu yagge do ko xolé bëtum non mané dafa am hadis bo xamné ne yunus sallallahu alayhi wasallam daf ko waxon ñun nañ ko appliqué rek ñu xol mbolam ñi yewu ci bir réew mi nañ ko ñu xol benno bi waxtu woo xamne ni am andno bi am ñu mobiliser wu ñun ñep Sénégal 14 region yep nek ben bloc katan bobu non amul dara lu ko meuna te sallallahu salaa sallam day wax ne masalul muminina fi tawadu'ihim wa taatufihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid isa staka min adun tadaa lahu sha'irul jasad bi chahri wal humma gis nga ben ci doomu adam ak doomu adam limi am am am katan li muy bari bari ab yëngatu li muy bari bari bari ab fitna di jugu di jugu ka dal sunu borom kàttanam googi noonu mu am bu ko yàlla nattoon benn baaramam ba gën a tuuti ca moom rek am benn jafe-jafe na muy tëddee ne call nga xam du mën a yëngal benn cër sonn nekk ci ak tumuranke aku méthode wu tar noonu ko suñ borom di yaree nga xam ne mboolum cër yëpp a yëgandool méthode ba nekk fee nit ñëpp noonu lañ war a mànkoo aduna bépp nim ko misali ci julit ñi waaye noonu lañ war manku ñun ñëpp ngir am liberté te lii di xew ci président Ousmane Sonko ak yi fi jaar xew xew yi fi jaar yëpp man dafa am benn gis-gis boo xam ne nii te xam jàpp naan dinaa ci bokk ak ñu bari ci gis-gis boobu dana ci ànd ak man ndeke nit ki sunu borom dana ko natt jaarale ko ci ay jaaruwaay yoo xam ne nii ak i tolof tolof ak i tuuma ak i wax yu ñaaw wax yu ñagas kenn ku ci nekk di jël lu nekk di ko sànni ci ab daram nekk suñu borom loolu ma ngi koy ma ngi koy def ngir sukkandiku ci dëgg ci ngir yëkk yëkkati darajey kook am na ci kenn ci ay risuma billahi yi koo xam ne dafa am benn cër bu mu doon sàkku ci sunu borom di yóot ay maqaama ki daraja ci exemple bu gàtt rek waaye sunu borom xamal ko ne ko lii ngay yootu lii nga ko mën a amee mooy faw rek nit ñi dañ la tuumaal dañ laa wax lii dañ laa wax laa wax yu ñaaw yu ñagas yooyu noonu ak tuuma yooyu di gàll di gàllu ci sa kaw mooy lay tax nga jot ci daraja sàngam wala maqaama sàngam la lay jox xarit ba ci ay maqaama te munu koo muñ natt lañ koy xayma te bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga muñ nattoom ya aw ca yoonu mbër ya loolu la saayir ba waxoon moo tax kii lay wax nii ñi nga xam ne jàng nañ moom tasawuf xam bu baax a baax yër lecture yu bëree bëri ñu ay njàng di bëri ci waa awoon tasawuf eh, danañ xam bu baax a baax li may wax kii moom amul lu may toog ak ay taalibeem fi toogee ak ñoom mu ñu jékki gis eh, jigéen ju rafet joo xam ne mi ngi ñëw di dox di ñëw ñoom ñëpp ñu di ko séen bi mu ñëwee ba jub leen rek sëriñ bi daa daal ne da jóg ànd ak soxna si dugg ci biir néeg bi te néeg bi benn buntu la am benn port bu mu mën a jaaree benn port la am bu mën a jaare ba mu fa duggee def fa ab biir daal di génnaat bi mu génn rek fi sensé taalibe yi toogoon foofu noonu daf ci am kenn ci taalibe ko an daa jóg rek dem wuti ak setala def ci ndox ñëw rek daat koy jox sëriñ bi jàpp na ne kii moom def na ak mooy yàlla def na ak ak gu fés goo xam ne ni aajo na fi ne ni mu laabaat dèjà kon kooku xam nga ne tuumaal na ko sëriñ bi jàpp ci loxoom ñëw ba ci néeg mu wan ko mu xool gis ne pokkos bi amul fenn fu soxna si mën a jaare te bi mu xoolee ci néeg bi gisul jigéen gisul dara mu ne ko gis nga kii nga gisoon mu dugg fi am malayka la dafa ñëw soppi ko yor jëmmi doomu aadama dikkal si ma nga gis na kon booba ba loola jàllee rek moom lam doon yóotu ci suñ borom ca la ko amee moo tax ci ay muñ ci kaw yi tar-tar ci ngay mën a jaar ba am li nga bëgg tekkiwul ne nag natt boo xam ne ni day wàcc cab jaam daa doon musiba wala mu doon ay gàllankoor yoo xam ne daf koy gàllankooram ba àddunaam di tukki déedéet te kii di président Ousmane Sonko ngor gi mu am kenn ku ci nekk war ngaa fexe ba bum la gën a gore am na ñoo xam ne dañu toog ci seen ay kër di wax ne xale yi nga xam ne dañu génne di def ay nekk ci manifestation yi di yàq di di def lii di def laa seen bakkan ñoo cay xala rotee ñooñu di wax loolu xanaa xamuñu ne ñi ñi porté combat bi ñoo leen gën a nekk danger ndax ñiñ jàmmar lool mooy état du Sénégal xam nañ leen xam nañ seen ay kër xam nañ seen ay njaboot kon dèjà kooku moo la gën a nekk ci danger te moom ci jëmmi boppam bis buñ ko bëggee faagaagal xam nañ fa ñuy jaar mais yow mi nga xam ne yaa ngi sa kër léeg-léeg nga jaar mbedd ba la neex traverse fa la neex am liberté doo dox fenn ba kenn di la bàyyi xel bokk ki nga xam ne nii toujours fu mu ñu ne ma nga ne kooku tey ji yow yaa ko gën a nekk ci sécurité bu demee ba taxaw nag ba jàmmarloo ak aw askan wu ak ak ak état yu Sénégal di dénoncer seen ay njuuj njaaj ak i tappale ngir bëgg lay dimbale yow rekk waay bu mu la gën a gore am na ci ñoo xam ne sax dañu dem ba daanaka dootuñu xam sax lan la ñuy wax ndax jàpp as gor terme bu la neex nga jël ko utiliser ko ci kawam tam am ay njaboot comme yow léeg nga ñew daal di génn daal ne waaw diw rebel la ñu ne waaw léeg nga ñew daal ne diw de day def lii ñu ne waaw nga ñëw na diw de day génn fitna nga ne waaw nga jëwaat daal ne diw moom day dajale xale yi di leen gëmloo yu nekkut di taal ay fitna ñu ne waaw nga ñëw na diw de daa bëgg a taal réew mi nga ne waaw nga xam ne ñoom jàpp nañ ne jël seen baaram di ko joxar ba ci diw moom yi ne président Ousmane Sonko mii ngeen topp lii ak lii ak lii la fi nekkee li ëpp ci ñoom jàpp nañ ne ñoom seen terme yooyu ñu mooy tax nit ñi bàyyi Sonko mukk doomu aadama yi defuñu ñu yewwu nañ xam nañ bu baax a baax a baax a baax seen njëriñ fa mu nekk xam nañ bu baax a baax seen ay njëriñ fa mu nekk te léegi sax dem na ci ba li ma waxoon sàng di ko junj ne euh, état bi dañuy yàq jikkoy nit ñi seetlul ñaata nit su ne léegi ñooy dundee ger am na ñoo xam ne sax ci procès Ousmane Sonko bi ñoom dañ ciy dañ ciy profito ngir mën cee dund ñoom leer na leen ne leer na leen ne nit ku baax a ngi nii leer na leen nit ku sell la nit ku jub la leer na leen ne programme bii mu am moom moo nar dimbali senegal leer na leen ne askan bi nootal gii ñu nekk ak fitna yu tar yi ñu nekk leer na leen ne Ousmane Sonko mooy ki ci nar a génne xam nañ loolu bu baax mais bëgg dund tax na leen ñu jaay seen ngor ngir bëgg a jege état bi ngir bëgg am ay kër ngir bëgg am ci ci alal ji ngir bëgg di tukki di voyage di dem ak dikk ngir bëgg dund dund bu luxe jaral na leen ñuy def ay vidéo di def ay déclaration fu nekk ñu dem fa lu nekk ñu wax di yàq der di xas di saaga di changer euh, pas-pasi nit ñi di fat nit ñi di leen sonal waxtu wu ci nekk nekk ci deru jàmbur koo xam ne tëlu la lijjantiwu la toujours mi ngi ci ay activité am mi ngi dimbali Sénégal yi mi ngi leen di jege mi ngi bokk ak ñoom seen aw naqar di bokk ak ñoom seen am amam lépp loo xam ne nii am na ko ci ay moyen mu koy bokk ak ñoom koo xam ne nii benn benn politicien ngay gis wala c'est c'est très nga gis ko lu néew a néew nga gis ko koo xam ne day jël salaire am di ko jox askan bi koo xam ne soxlawul dara askan bi lu dimbali leen koo xam ne ni njub na njub goo xam ne mën naa taxaw dénoncé wax ne képp ku ma xamal léeg-léeg ñëwal lan moo tax discours yooyu noonu moom rek ngay gis mu koy porté léegi nag ndaw ñi ñoom dafuñu xam nañ bu baax a baax ñun régime bi ñu nekk xam nañ ko régime bi fi nekk xam nañ ko kon bu ñu kenn théorie am na fii ay ñoo xam ne nii kenn sax du tudd seen aw ndax seexlu seen ay jëf ak seen ay jikko ñoo xam ne dañoo dem ba ànd ak seen askan jekki-jekki wor leen ndax loolu gis nañ ko ci kii doo ko gis benn yoon aw nit gëm la sa aw askan topp la nga ànd ak ñoom ci ay élection nga jekki-jekki wor leen dem tafa ci état loolu ana ñan ñoo koy def ci réew mi ndax yow nit da nga jaay sa ngor tayle sa askan ngir ngir ngir sa intérêt personnel nit ñi di di wëlbatiku di jël seen cadeau di la ko jox di jël seen ay loxo di la ko jox nan la yow ya fi nek ta leer na leen ne yow nekkoo fi xam nañ bu baaxa baax ki fa nek defe na ne day ko xam ne bëgg nga noppaliku lay lima lay nungul dogalu sunu borom subhanahu wa taala te yalla moy ko xamne kat nam yemewul fenn te lum mu dogal ci jamm kenn mënu ci dara de doole ju joge ci suñu borom di beri beri yi ñëw amul benn jamm bu mën taxaw ne dang koy défendre ben jam bu meuna taxaw delu ko défense taxaw ne li dina ko arrêté mukk kon li ay taxaw setlu la ay jàngat yu bari yo xamni ne incha taala danañ continuer incha allahu di ci ñëw di ci def suñ ay jàngat ndax sallallahu alayhi wasallam da wax ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastatix fa bi lisaani fa in lam yastatix fa bi xalbi del wana was dalika adaaful iman sallallahu alaihi wasallam da wax ne waxtu wo xamene gis nga lu ñaaw lu bon lu ñu sip lu ñu tare nang ko taxaw nga dinde ko ak sa lox soko ko munta ak sa lox nang ko dinde ak sa lamin soko ko munta ak sa lamin nang ko naqarlu ci sa xol donte sax lolu mom mo gëna neew sax waye def ko tamay lu wax na nak kep ko xamne ni japp nga ne xew-xew yi di xew nga noppi ci ne da nga na la wóor ne fitna ja cay juddoo ëllëg ma dellu bamtuwaat ko fitna ja cay juddoo ëllëg doo ca mucc sa njaboo du ca mucc say jegeñaale duñ ca mucc say dëkkandoo duñ ca mucc ndax yaa ngi ci biir réew mi faaw da ngay jóg ànd ko ñëpp ñu xeexandoo xeex bii muy ak noteel na fi jeex sunu pétrole sunu gaz nañ ko jëfandikoo ca anamin gamu ware sunu xëyum ndaw ñi nañ ci taxaw na ware wàllum njàng mi étudiants ak étudiantes yi ñëpp a sonn te ku xool xew-xew bi xewoon démb gën na koo firndeel dund bu seer bi sunu suuf sunu or sunu lépp ñun dañoo soxla état bu ko sàmmal soxlawuñ fi état boo xam ne day ñëw wër-wërloo ak ñun téye ko ci beneen anamin ba yeneen ay réew di jóge feneen ñëw di ci dund ñuy ñuy dëkkee di sonn ak a torox ba faatu ci ñun soxlawuñu état bu ñuy defal loolu lii na nañ ñëpp taxaw xeex mu jóge fi ak jàmm ñoo ngi jéggalu bu baax a baax di wax ne in uridu illa al islaaha mastataatum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf seen mbokk Mouhamadul Moustapha Niang al Karim jàmm ak xéewal ak yërmande ak sutura yal na ko sunu borom sotti ci sunu réew mii di senegal jërë ngeen jëf.